béggee sama jumeau rakk yow di la ziar di ziar Tarba Mbaay ak orchestre am bépp donc dañuy am contentement di ñëwaat tey ci beneen prime final leen wax ni toujours Kaay Cover dafa nekk concept bu bees boo xamante ni on veut juste valoriser un artiste au studio parce que concours yu bëri yi am live lay nekk xale yi di woy live mais concours bi on juste démontrer la valeur d'un artiste au studio parce que boo xoolee ma répété ko artistes yi fi gën a nekk di gën a dox di gën a tourner ci àdduna bi boo xoolee seeni Grammy Awards ni ñu ko amee et tout bu ñu live mooy loolu par rapport ak. c'est donc artiste live am na artiste studio am na donc pour valoriser artiste studio moo tax ñu teg concours bi. c'est très important yëpp. merci Racky ki ci topp mën nga wax. merci <laughs> euh, gis nga Jules Lumu Sengse. laisse Jules Jules dafa dégg nag. mais mon amour yow lay topp. oh oh. maa ngi xam maa ngi xam jàppale ma maa ngi xam. maa ngi nuyu téléspectateurs yi bu baax a baax di nuyu public bi ah di nuyu yéen ñëpp di nuyu Julie Baye Zane Patros ah di kontaan bu baax a baax ci tay waaw alors tey nag dina métti mais. gars yaa ngi fi ñoom Baye Zane ak Patros man foofu laay yow. <laughs> merci beaucoup mon cher l'international Mister Baye Zane maa ngi lay ziar maa ngi lay jox sa wàccuwaay. membre du jury bi nga xamante ni moom itam yàgg nañoo gunge ci li nga xam ni depuis euh, Kaay Cover mu nekk ci ku mucc ayib maa ngi lay nuyu mon cher di la jox sa wàcc wàccuwaay di la wax bonsoir. delloo ziar Kheucha. mais naka yi tey. ñoo ngi sant bu baax mais lan mooy seen problème yaa ak Jules. non y' a y' a problème xam nga dañ ne ci villa. villa boo xam ne dañ ciy liggéey. liggéey nag bu tegoo dañu war a liggéey mais amul leneen lu dul liggéey lu ñu war a def kii maa ngi moom 2012 ba léegi. kii sama rakee ku ma ko proposé wul bul jël am na ku ko fi proposé woon keroog kook sama xarit la ah. moom mi ngi géré mais keneen bu jël rake du dëgg <laughs> en tout cas Jules dafa ñàng de euh, mais Baye naka nga gisee prime bi tey ñoo ngi nuyu waa Sénégal di nuyu GBS di nuyu Souleymane di nuyu sunu grand Padros di nuyu Soxna Raki ak euh, sunu woykat bi Tarba alors di nuyu assistance bi yëpp tey nag euh, dem dégg naa li best wax dafa bëgg a mettre en valeur euh, artiste studio mais que tamit pour nga juger ci dafay xaw a difficile. dëgg mais tey dama noon bëgg candidat bu yéeg rek. mu mm-hmm. acapella même même trente secondes. D'accord. Pour nous am aperçu quoi. Comme la dernière fois. Yeah. D'accord. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Baye. L'international, l'animateur vedette de ITV e E-Media, mon cher ami l'international maa ngi lay nuyu di la ziar di kontaan ci yow. Mon petit frère de valeur Mr Patros. di la fay mon grand frère. mbay Moussa Diama Kumba Seen mbay Goli Fatim maa jooja borom ngaay njire mbay Demba xoy mbay Demba ak Lati mbay dembak ak Yaboy mbay dembak ya leen mbay eh, tàccu leen loolu kenn du moom <laughs> yaa fi ne yow bëgg rek paros non paros paros non Jules paros Jules sama xarit nga <laughs> sama xarit nga non non génnal foofu rek raxaw sama xarit nga bëgg eh, ros ros bëgg rek non wuyu ma <laughs> moom xam nga la ñu mujjee def ah euh, télé-réalité bi li am waaw ngeen war a wane waaw que Kheucha dafa nopp raki d'accord ngeen wala d'accord ngeen waaw d'accord ngeen d'accord ngeen loolu xësa parros nii nga may def waa defal naa ko wax la yow lii laa la ji waa defal naa ko rek ma wax la ak li ma daj ci yow li ma daj ci yow lii nga may seedeel xam man damaa mën a wax dëgg ah. man dama direct ah. et damaa gis ni <laughs> bu dee da nga direct kay waxal wax ji rek ah.